Euh, bu dee da nga am euh, doom euh, mu fot wala dugal dara ci gémmiñ gi affaire bi bëgg a jàll ba mu war ko indil ay loraange am na ay noo war a comporter woo pour mun a sauver xale bi n'est-ce pas Yacine. waaw Pape Cheikh c'est des cas qui arrivent et malheureusement parfois su fekkente ne ki yor xale bi wala ñi ko wër xamuñu les premiers gestes très souvent mën na indi li nga xam ne mooy dese xale bi parce que euh, su air ñàkkee rek au bout de dix minutes diggante li nga xam ne mooy poumon bi ak voie respirée fii nga xam ne fa la air bi war a jàll nit ki mën na perdre connaissance ba far yàlla mu jaare fa donc su fekkee ne c'est le cas d'un comme on l'a fait la semaine passée dem nañ ci ñi nga xamante ne dañ koy jàngale muy la Croix-Rouge euh, bi nga xam ne moo nekk fii euh, ñu wàññu le cas d'un boo xamante ne dafa lekk de travers wala sax muy fo jël dara sex ko mu xaw ko fot nan lañ ko war a mën a sauver dès les premiers instants am xale bu nga xam dafa dafa dafa fot mu am lu ñuy wax des voies respiratoires maanaam dafa doon lekk ba si yàgg am lu nga xam dafa takk si boole gi boobaa mu am possibilité nga ubbi nga xool su dee dafa am lu ko lonk benn morceau la bu nga xam mun nga ko xëcc si nii. waaw mun nga def nii ñuy wax li ñuy wax extraction ak sa baaraam bu dee yaa ngi ko gis nga ko lonk mu mu génn yenn sax mun a am ki nga xam ne benn bëñ bi moo ko lonk rek benn genn waa nekk ci biir laa mun ko lonk mu génn. su dee euh, def nga gisoo ko dafa dafa dafa sori ci biir a biir et là bu la neexee mën nga def nii nga dóor ci ci omoplate nii lañ koy rek facilement mu mën na ko expulser mais lii day fekk mu nekk lu nga xam ne dafa takk fii demul bokkul ak lu nga xam ne comme mu na xaalis wala mu wan benn wala mu wan benn bii wala dara kooku bokkul ak li kenn ko defal bii mais bii lekk bi la moo takk ci boolu gi et là ñu ñu puus ko ñu dóor ko ñu dóor ko mu dem waaw bu doon mag sax mën nga wax ne na yëy dara na jël dara mu mu avale ko sans pourtant mu marché ko mu mu yëy ko da koy wan na noonu rek comme benn danku ceeb wala benn mburu mu yëy ko mu wan na ko noonu rek mu dem ça fait mën na pousser à le corps étranger mais ko nag da nga ko defal dekkal ak dans le dos nga dóor ko tàpp ni baax bu xam sax bu la neex sa mën nga sa sëggal ni sax dóor si dóor si dóor si omoplate waaw yi li ñu wax dekkal ak dans le dos bu dee bu dee pour xal waaw xale bi nga xam ne dafa doon lekk mu fot bu ñu ne fot nag mooy lu nga xam ne dafa taxaw ci booli gi demul ci mbaax gi génnul léegi da ngay ubbi gémmiñ nga xool su dee dafa am lu ko lonk fii mën nga ko dindi nga xëcc ko mu génn su dee nag aussi tamit euh, gisoo ko dafa sori ci biir a biir et là da ngay jël kii bi nii nga nga nga sëggal ko nga dóor ci nga dóor ci dënn comme ça. parce que ni nga ko dóora nii rek kii bu si yëngatoo rek facilement noy bi da ko noy bi da koy génne et là moom ñuy wax des claques dans ko a sëggal baax sax toujours nga dóor si omoplate comme ça dóor mu wàcc waaw bu yàgg yi bu dee xale bu ndaw ndaw nga koy nga koy juutal ko di ko secouer mais loolu loolu loolu dañ dañ ko bàyyi lu gën a kii lu gën a pratique mooy nga nga dóor ko si ginnaaw gi nii rek facilement mu dem voilà si ça persiste nag ngeen yóbbu ko kii ngeen yóbbu ko poste santé bu leen gën a jege. voilà su dee xale bi nag dafa wane benn pièce wala mu wane benn bii wala mu wan wala mu won wane benn corps étranger solide. et te mu wan wan na ko ba mu jàll kooku jarul ñu koy defal mm, ci méthode bi mais dañ koy surveiller su dee xale baa ngi commencé ci sëqat mu mel ni kuy coroxaan di sëqat bu dul jeex. kon ñu ñaaw njort ne kon li mu wan nii kon demul ci fu lekk bi di jaar dafa dem fu dafa dem fu fu ngelaw lu di jaar dañ ko war a yóbbu même bu dee sëqatul dafa dara dañu war a surveiller ses selles bu demee cabinet ñu xool est-ce génne waat na ko su dee génne ko tamit dañ ko war a toujours yóbbu ak kii vers un poste santé pour ñu xool loolu mu wan li ko étranger bu fan la nekk ci yaram bi waaw kii dañu am xale bi nga xam ne dafa dafa dafa fot mu am lu ñuy wax des voies respiratoires maanaam dafa doon lekk ba si yàgg am lu nga xam dafa tax si boole gi boobaa mu ne am possibilité nga ubbi gémmiñ nga xool su dee dafa am lu ko lonk benn morceau la bu nga xam mun nga ko ci nii. c'est vrai que xale dafa sob day jékki-jékki rek for dara sex te bu ko sexee mën na indi ay gàllankoor yoo xamante ni maara day taali donc bu fekkee dal na sa doom loolu euh, mooy euh, conduite yi nga xamante ni moom la way jur bi war a euh, demee pour mën koo sauver à temps parce qu'on sait jamais. voilà pour mën ko sauver à temps euh, wan wane na ko c'est les gestes de premier secours très souvent soo seetloo ki fot dëgg-dëgg pas cher gémmiñ gi day ubbeeku parce que boobu mënatul noyyi. Mm-hmm. donc su boobaa euh, yow soo ñëwee rek premier geste bi ngay def mooy da ngay xool déjà biir gémmiñu xale bi parce que très souvent comme ni mu ko waxee mën na nekk looy seen nga mën ko rocc ci saa si nga permettre ko mu nooy wala mu am fu mu lonk ci bëñ yu nga mën ko dindi mais su fekkee ne du loolu yëpp yow mënoo ko seen alors da ngay xale bi nga dóor ko ci li nga xamante ne mooy digg gannaaw gi soo ko dóoree nag juste ci niveau bi mu wane su boobaa day réagir mën a sëqat affaire bi mën a génn mais si ça ne marche pas am na benn élément peut-être si montage bi la dañuy def ce qu'on appelle une pression abdominale c'est-à-dire xale bi soo ko jëlee nga téye fii même su dee mag sax soo jëlee fii téye ko def nii rek dangay gis foog nga ubbi sa gémmiñ donc su dee mm. xale bi aussi même chose soo ko téyee nii ci abdomen bi fii fi dënn bi jeexee euh, fi nga xam ne fa la biir bi commencé nga pressé ko da ngay gis ne day def euh, geste bu mel noonu léegi nag dans les normes euh, su ci yàlla defee sutura xale bi war na mën a yàbbi li mu sax wala mu reprendre nooyi mm-hmm. su fekkente ne nag amul il faut appeler les urgences et les mm-hmm. urgences on les appelle des les premiers instants mm-hmm. euh, bi ci des aussi mooy ne que xale bi si boppam su fekkente ne liquide la xam nga parfois mën na bañ a nekk euh, objet boo xamante ne yaa ngi koy gis su dee liquide la aussi dafa fekk ne dafa fatt ci voie respiratoire on conseille beaucoup plus nga dóor ci di diggannaay pour mën a permettre affaire bi dégagé wu liquide bi dégagé wu su fekkee ne nag da leer ne sex na ko wala jox nga ko mburu comme ni mag yi daan def mhm. ñoxitu mburu wala nga jox ko li nga xam ne mooy dank ceeb euh, mu jàll mhm. dañ ne il faut surveiller ses selles parce que su jàllulee ci sel yi mën na am mu jàll feneen fu dul sel bi indil ko mhm. yeneen i xeetu problème donc il faut tout le temps le suivre de près lu ngay wax lekk bi ko a fata il faut ñu koy surveiller ñun tàmm nañ di jël xale di ko teel a tàmmal xaalis di ko mm. jox ay pièces mu koy fame mm. fawee wala yenn objets yi lu mel ne ay per ak ñoom seen mm-hmm. une fois que nga am doom c'est des choses yoo xam ne war nga éviter muy traîner ci coiffeuse yi wala ci kër gi mais su yàlla dogalee nag lu mel ni am on a montré Pape Cheikh Diallo li nga xam ne mooy les gestes de premier secours defal nañ ko ay mag aussi dinañ ci ñëw parce que bi may def euh, reportage bi am na benn secouriste bu ma expliqué ne récemment am na ku mag ku gaañu ci loolu Euh, da doon kii c'est un pêcheur. Mm-hmm. ñoom suñu nappee jën bi sol bi su dee bu ndaw la foog ñu yëy li nga xam ne mooy xam naa ay pratique mm-hmm. artisanale yu njëkk la. Mm-hmm. donc daf ko def fat jën bi rëcc. bloqué wu donc sur le coup ñu koy jéem a xëcc xam naa affaire bi jàpp. il est mort sur le coup donc vraiment c'est des gestes yoo xam ne war nañuy gën a jàng mais di gën a moytu aussi Pape Cheikh. bah oui bah oui intéressant en tout cas koy tegalaatal. Euh, sur euh, YouTube bi ak page Facebook bu. Euh, yeewu leen bi ça va permettre xaa ngeen xam technique yi faites mhm. très attention di surveiller xale yu baax na et comme tu l'as dit euh, am na yoo xamante ni boo amee doom bu ndaw ci kër fexeel ba mhm. euh, jële ko ci environnement wu xale bi parce que mhm. mën na ko foowee mais mun na jur jur am nga am doom Pape bëgg di décorer sa di jënd pierre yooyu di tàkk di ko teg ba tey te xale bi mën ko foowee mieux vaut ne pas avoir tout ça dans une maison ba xale bi am benn âge de maturité bi ci boole ci lu koy protéger la bokk aussi c'est important oustaz ci jaamu yàlla la bokk yàllaa ko njëkk a santaane mais yàllaa ko yëfi tubaab yëfi jaamu yàlla la à la base xool euh, moytu moo nekk balaa ngaa lakkale yàlla baax na ji dafa am fu muy yem wallaahi wallaahi yàlla bëggul yàlla baax na sax déedéet yàlla yàlla bay sa tool alaaj pap xëyal rek toog ci lal bi ne yàlla lay xaar mu sang ma ah wala la yàlla lay xaar daal ndikki laa ngi tegu yàlla lay xaar mu sixal ma mm. yàlla du la sixal kenn du ñëw di la sang bi mu la joxee xel alaaj pap jox la jox la jox la ay loxo mm-hmm. yàlla daal yàlla olofay wax ne yàlla yàlla bay sa bay sa tool waaw yàlla te te njaboot nag dañu koy sàmm ah. gis nga doom ni mu amee amelee waajur àq noonu la waajur amelee doom àq waaw njaboot da koy bàyyi xel njaboot da nga koy toppatoo njaboot da nga koy surveiller mhm. bari na njaboot yoo xam ne loru nañu la leen lor seeni wuy jur moo leen ko teg alaj waaw la leen lor seeni wuy jur kon lii dafa jar bàyyi xel soxna mhm. Yacine lii mu indi daal euh, jar na génnewaat ñun ñëpp ñu jàngee ci maa ngi tey concentré wu yàlla bu mu dal benn njaboot mais euh, dogal buy ñëw doo xam naka lay dikkee mhm. mais fekkee ndogal am na nu mu ñëwee ci sa njaboot yow nga xool nan nga ko mën a aaree mooy sécurité ki ko gën a bëgg mooy borom bi subhanahu wa taala euh, bi dafa ñëw taxaw ci buntu kër yonent bi rek ñu laaj ko lu tax mu ni damay ñëw dama koy garder mm-hmm. dama koy garder moom moo waxoon yonent bi ne ko dama bëgg a nekk sa secrétaire mm-hmm. mu ni ko mënu koo nekk parce que déggoo langue yëpp mm-hmm. man pour nga nekk sama secrétaire war nga dégg arab pire war nga dégg français ah. war nga dégg anglais war nga dégg si langue war nga ko dégg waaw mais sécurité daal alaaj pap ki ko gën a bëgg mooy borom bi subhanahu wa taala moo tax mag ñi yàgg wax ni xoddee euh, ko balaa euh, yóbbee euh, wax naa ba tàyyi ni bi wax na ko lu xew lu xew ñu ni ndogal mm-hmm. am na yoo xamee ni euh, tayeef la du euh, ndogal ñun nag comme suñu baat benn la yàlla baax na mais dañuy gën di góorgóorlu ci wàllu aar suñu bopp donc loolu moo indi ñu leen di présenté chaque vendredi partie bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu kaaraange surtout kaaraange yi ci biir kër yi ak nga xamante ni moo di Yacine am na loo xam ne xam naa dañ si ñëwaat fan yi mm-hmm. dañu gis ni ñun ñëpp suñuy kër daa am ay palanteeru gris nga xam ne dañu mm-hmm. koy baare ba bu catastrophe amee euh, ñun du ñu mën a génn jaar ci palanteer mm. sapeur pompier itam bu ñu ñëwee du ñu mën a euh, jaarale sax seen loxo mm-hmm. euh, ci porox ndollu palanteer yi itam c'est des trucs à éviter te yu ñu tàmm la ñun fii ci Sénégal yu tàmm la benn clin d'œil dinañ ci ñëw parce que sécurité yaatu na mais très souvent dañuy mélanger li nga xam ne mooy sécurité ak sûreté hmm. Pape Cheikh Diallo waxoon naa la ko si koor gi xaw ma daaloo la daaw je ma la américain daka naan safety mooy sécurité nit ki ah. mu naan sécurité mooy la sûreté des biens léegi nag ñun dañuy gën a protéger ñun euh, suñuy bien que li nga xam ne mooy suñuy bakkan parce que su fekkee ne am nañ ko à l'image soo amee fenêtre yi nga xam ne dañ ciy faral di def comme à l'aluminium nga xam ne dañ day am ay barreaux yooyu euh, su incendie amee doo mën a gaaw a évacuer lay nekk am temps foog mu siyee ko mhm. laata muy mën a dajji baro yooyu xay na ay bakkan mën nañ cee loru donc y a ce qu'on appelle des de sûreté de de de sécurité mhm. bokkul ak sûreté yii ah. c'est pour protéger say bien donc dafa am sûreté soo ak sécurité soo amee sa magasin wala fooy tëj pour def fa say alal mën nga fa def fenêtre pour aérer mu am ay grilles pour que sàcc du ca mën a mën a accéder mm. mais su fekkee ne sa biir kër la y a ce qu'on appelle des ay palanteer yuy respecter les normes de sécurité nga xam ne soo ko xasee tëj biir amul kenn ku ko mën a ubbi waaye bis bu incendie amee dina nekk yow looy mën a njëkk a ubbi wala sax loo xam ne sapeur pompier dinañ ko mën a ubbi pour mën la nga ni ñun suñuy bien la ñu a protéger que suñu bopp dëgg la de da koy ñun ñoo garaaw exactement je te jure mm. on beaucoup plus suñu ay mm. nos que notre propre personne alors que ñun ñoo parfois sax ñàkk xam la di foog ne gris bi ngay teg day tax sàcc bi du mën a dugg mais xalaatal ne soo tegoon alarme moo gën que nga teg grille bi nga xam ne su jéyee amee évacuation bi day nekk problème mhm. moo tax y a des fenêtres uniquement pour ça loo xam ne sàcc mënulu ko dara nag mhm. suñ ko kiyee du siyee mais yow mi nekk ci biir di ko mën a ubbi mhm. mais aussi ñi nga xam ne jàng nañ sécurité xam nañ nañ la ñuy peut-être euh, désactiver yenn fenêtres yi su boobaa et c'est pas des trucs électroniques am na yi nga xam ne c'est artisanal mais ay méthode la pour euh, mën a sàmm li nga xam ne bis bu jéyee amee euh, nga mën a sauver sa bopp ku yóbbu rek ñaaw njort ñaaw leen njort ci lépp pour ëllëg prévenir non il faut l'être merci en tout mhm. euh, ci conseil yi nga indi tey ci euh, kaaraange euh, surtout gi ci biir kër gi mhm. ak xeetu kaaraange yi ñuy foog ni dafa terre à terre alors am na solo bëri na ay nit yu ciy lool